الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى عليهم وعلى إمامهم سيدي ومولاي أحمد التجان وعلى آله وصحبه وسلم تسليما mbokk jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu ñëwaat nañ ci bind bi ñuy jël talaata jot waxtu wi di ko jëlee ci téere nit yàlla ku màgg kii di ibnu atailahi as-sakandari tey jii tam ñu ñëw di jàng xikma bu am solo xikma boo xam ne dafa xaw a nuroo ak xikma bi jàll mën nga wax sax benn lañ ci déggin muy alxikmatul xamsuun muy juróom fukkeelu xikma mu ne laa saxiira laa saxiiratan ida qaabalaka adlu wala kabiratan illa ida waajahaka fadlu mu ne laa saxiratan bakkaar du tuuti bu yàlla jëflanteeg yow ci maanoom gi bakkaar du tuuti su fekkee yàlla dafa jëflante yow ci maandoom gi waaye bakkaar du rëy bu yàlla jëflanteeg yow ci mbaaxam gi bu jëflanteeg yow ci mbaaxam gi bakkaar du rëy ndax lu mu rëy rëy rëy mu jégal la ko bu jëflanteeg yow ci maanoom gi bakkaar du tuuti ndax lu mu tuuti tuuti mën laa dugal safara mu ne yuqsimu alama almaasi ila kabaira wa sagair wa asaasu dalika qawlu llahi tabaraka wa taala in taj ijtanibu kabaira ma tunhaw ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum mu ne borom xam-xam yi dañoo séddale bakkaar yi ci bakkaar yu mag ak bakkaar yu ndaw borom xam-xam yi dañoo séddale bakkaar yi yii ñu tudd leen bakkaar yu mag yii ñu tudde leen bakkaar yu ndaw loolu nag fi ñu ko jëlee mooy ci alquran soo demee sooratu nisaa yi ci aaya fanweer yàllaa ngi naan in tajtanibu kabaa'ira maa tunhaw su ngeen moytoo bakkaar yu mag yi xaw tunhawna anhu su ngeen ko defee nu kaffir ankum sayyi'aatikum danañ leen jéggal bakkaar yu ndaw yi wa nudxilukum mudxalan karima ñu dugal leen àjjana su ngeen moytoo bakkaar yu mag yi ma jéggal leen bakkaar yu ndaw yi ba pare dugal leen àjjana loolu mooy alquran moo tax borom xam-xam yi ne kon bakkaar dafa am yu mag am yu ndaw <coughs> wa lahum fi taarifi alkabair wa tahdidiha kalaamun kathir ni ñuy ni ñuy xamlee bakkaar yu ak bakkaar ndaw nag wax nañ ci wax ju bëree bëree bëri mu ne wa ana ujizuhu fi taarifiha thumma fi dhikri anwaiha mu ne maa ngi nii di la di la tënkal ni ñu ni li ñu tudde bakkaar yu mag li ñu ko tudde su ma paree ma wax la lenn ci ay xeetam amma taarifuha ni ñuy xamee bakkaar yu mag yi fa huwa kullu ma jaa fihi waadun min allah bi adabin fi l lu yàlla tëg koo bugalum alaxira bakkaar bu mag la bépp bakkaar bu yàlla tëkkoo bugalum alaxira bakkaar bu mag la aw unitat bihi uqubatun fi dunya kal xaddi wa yàlla ne na ngeen ko def nangam ci àdduna su fekkee yàlla dafa laa teg daan ci bakkaar ci àdduna tëkku la mbugal mu rëy alaxira loola nga def moo tudd bakkaar bu mag kon bakkaar bu mag ñaari màndarga la am bu njëkk bi mooy yàlla tëkku mbugalum àllaaxira ñaareel bi mooy yàlla daan teg la ay daan fii ci àdduna bi wa amma tedaaduha wa dicru anwaiha fa hiya almaasi taali ñi ngi tëkk léegi xeetu bakkaar yu mag bi ci njëkk mooy ashirku billahi bi ci njëkk mooy bokkaaleeg yàlla te mu sew lool te yomb lool ci jamono ji bokkaaleeg yàlla mooy jox leneen lu dul yàlla wala keneen ku dul yàlla cër cëru yàlla jox keneen ku dul yàlla wala leneen lu dul yàlla nga jox ko cëru yàlla loolu mooy bokkaal wal waidu ladi jaa fi xaqihi ku def loolu li la yàlla tëkkoo mooy lii mu wax ci suuratu nisaa yi aaya ñeent fukk ak juróom-ñett inna allaha la yaxfiru an yushraka bi wa yaxfiru ma duna dalika liman yasha yàlla nee na bakkaar yépp mën naa ko bokk baale ba mu des bakkaare bakkaaru bokkaale ma wutal mu wujj lépp loo def yàlla yàlla mën na la ko baal ba mu des nga wutal ko wujj te mooy nga jox cër bu mu moom moom kot nga jox ko keneen ku dul yàlla wala leneen lu dul yàlla te loolu bari na ci jamono ñaareelu bakkaar bi mooy uquuqul waalidayn mooy sàggane say wayjur sàggane say wéjur ci bakkaar yu mag yi la bokk moo tax bu ñu demee ba jamono jamono ñuy askale nit ko am diine te jubóowul ay wéjuram loolu du neex a dëkk bu ñu demee ba jamono ñuy askale nit am diine te ay wéjuram gërëmuñ ko du neex a dëkk suñ demee ba jamono ñuy askale la nit am diine te ay ay wéjuram njëkku ñoo seede ak mbaaxam loolu di neex a dégg léegi mbugal mi nga xam ne wala tëkku bi yàlla tëkku ku ku ku sàggane ay waajuram mooy li mu wax ci alquran suratu isra aaya fanweer ak ñett wa qada rabbuka an laa taabudu illa iyaahu wa bil walidayni ihsan yàlla ne dogal naa ko ba pare waaw waaw amal naa ko ba pare moo di leen li xew mooy kenn waru leen a kenn ku dul yàlla su ngeen paree ngeen teral seen wayjur kon mën nga xam ne diine ñaar mu la gëm yàlla teral wayjur waaw yàlla ne ma farataal naa ci yéen ngeen bañ a déggal kenn ku dul man du ngeen déggal kenn ku dul man waaye su ngeen paree ci déggal ma nag na ngeen teral seen wayjur loolu mi surtout Isra kooku mooy ñaareelu bakkaar bi nga xam ne bakkaar bu mag la mooy ñàkk ay toppatoo say wajur ñetteelu bakkaar bu mag bi mooy xatlu nafsi bi xeyri xaq rey ku deful dara rey nit ku deful dara tëkk bi yàlla tëkk ku def loolu mi ko def ci suuratu nisaay yi aaya juróom-ñeent fukk ak ñett wa man yaqtul mu'minan mutaammidan fa jazaauhu jahannama xaalidan fiha fa jazaauhu jahannam xaalidan fiiha yàlla neena na képp ku jullit te tey ko képp ku rey jullit te tey ko yàlla nee na sa pay mooy jahannam te da nga fay sax da nga sax doo ko génnaat sa pay mooy jahannam dugg jahannama te da nga say sax wa man yaqtul muminan ku rey jullit muminan jullit lay firi du firi ku gëm yàlla fan yi am na benn kilifa làbbe ku seetoon benn kilifa diine di ziyaare ko kilifa diine bi ne dañoo war a jàppalante parce que yàlla moo wax ne innamal mu'minuuna ixwa ñi gëm yàlla yépp ay mbokk lañ te catholique yi de gëm nañ yàlla fan yi la ko kilifa diine wax mu ne mu ne innamal mu'minuuna catholique yi ci lañ bokk <laughs> xam nga fii fu naqaree gëm yàlla Sénégal bi dëkk bu naqaree gëm yàlla ndax do ñi wax daa bari te ay borom borom daraja lañ te dañuy fen rek xam nga borom de borom daraja rek bu fenee rek gaañ ndax koo xam ne ñëpp wax dëgg lañ la séentu soo fenee rek gaañ kon mu'min jullit lay tekki du firi gëm yàlla parce que jullit rek a gëm yàlla parce que ku gëm yàlla day gëm yont yàlla muhammad ku gëmul yont yàlla muhammad sa gëm yàlla matul kenn du la tudde mu'min kenn du la tudde mu'min jullit yi dañoo gëm yonent yàlla Muhammad gëm yonent yëpp suñu weddi woon benn yonent ci yonent yi duñ kon ku ku ku bett ku génnee yonent nekk kilifa diine naan la bokk ci ñi gëm yàlla bokk xam nga nar ngaa jaxase loolu mooy ñetteelu bàkkaar bu mag bi bi mooy xadful muxsanaat al muminaat xadf al muxsanaat mooy di tuumaal jigéenu jullit ñi di leen tuumaal ci mooy yàlla loolu bàkkaar bu garaaw te bu lu yomb sénégalais la dañu gis jigéen ju dugg ak génn rek ñu ne ñu daal di koy daal di koy daal koy tuumaal daal ne léegi njaalookat la te dara wóoru leen ci loolu ci bakkaar yu mag la bokk xasbul muminaat muxsinaatil muminaat loolu yàlla da cee tëkku bakkaar bu mag mbugal mu mag mi ngi ko ko teg ko ci suuratu nuur inna alladina yarmuuna almuxsanaati alxaafilaati almuminaat luinu fi dunia waaw loolu waxuñ ko sàkku njaalo waaw tëkk boobu tëkkuñ ko ñu sàkku njaalo jiñ nit njaalo moo gën a garaaw njaalo suñ delloo rek ci suuratu nuur xool xeetu tëkk yi fa nekk parce que ki njaaloo su feeñee te yombut mu feeñ xanaa mu ndax bu ko recruté tul kenn mënu koo caw ndax charte bi tax ñu ñu ñu ñu ñu caw ko kenn mënu ko réaliser bu njaaloo même bu njaaloo te sangewul bu ñu ko cawee téeméer yat bu tuubee day nekkaat jullit comme comme comme jullit yëpp am citoyen à part entière lépp lu jullit am mu mën ko am lu jullit di laaj mu laaj cër bu jullit mën a am mu am ko gannaaw bu ñu ko tegee daan pare te mu tuub waaye ki ki tuumaal nit njaaloo te amul fu mu ko teg dañ koy dañ koy caw juróom-ñett fukki yar kon ñaar fukki yar rek la ko njaalookat pare nag moom woote ci pénc ma ne diw lu mu waxati dëgg ko kenn déglooti loolu moo gën a garaaw njaaloo ñu woote ci ma diw kat fenkat la boo xam ne lu mu waxati du dëgg bu ko kenn déglu moo tax alxuraan wax ne almuhsanaat alxaafilaat rawatina jigéen ñu sàggan jigéen ñi nga xam ne dañu dañu dañu sàggan alxaafilaat jigéen ñu sàggan mooy jigéen ñi nga xam ne yëguñ seen yaram dara dañuy bëri dugg ci góor yi jaxasu bi xam ne ñooñu leen gën a gaawal xam ne dañu dañu dañu dañu xam ne naka laa koy tuddee fii di dugg fii amuñu réserve quoi kuy gis daje yow kuñ wax ñoo ñooy xaafilaat gis nga gis nga ñi gën a neex a ji njaawal ñooñu laa wax mooy jigéen ñi nga xam ne dañoo jogee bana bana du bëri ah te fekk sax njaalowuñ mais noonu lañ bindoo ñooñu ku ko def lu'inu fi dunya yàlla rëbb na la ci àdduna wal axira ak alaxira wa lahum adabun azim te nag mbugal mu rëy ngi leen di xaar mu mujj dafa dafa wasful adab bi ci azim yàlla bu nee lu rëy la loola rëy na lool kon nañ nañ moytu di tuumaal jullit ñi te léegi loolu lu yomb Sénégalais la moo xam tuumaal jigéen góor ñi wala jigéen ñi ngalam rek rek ñu ne caaxaan day jaalo jaalo kat ngalam rek rek ñoxat ka lay na rek ñu jiñ la jaalo ah, waaw loolu bakkaar bu réeréy la daanaka moo gën a garaaw bakkaar jaalo bi topp mooy ak lu riba ak lu riba kon jiñ nit jaalo bakkaar bu mag la waaye lekk riba moom itam bakkaar bu mag la li yàlla teg ko kuy lekk riba mu ngi ko def ci sortu baqara aaya ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom alladina yaakuluuna riba laa yaqumuuna illa kama yaqumu alladi yataxabatu cheytaanu min al mas yàlla ne lekkatu riba yi dañoo mel ni ñu jinne satt dañoo nuróog ñu jënn satt duñu ànd ak xel seen xel du dal seen fit du dal duñu duñu nite ndax lu ñu am xeeb ko foo leen fekk seen fit day dem day fërfëri mel ni ku jinne satt kon lekk riba ci bakkaar yu mag yi la bokk lekk ribaa riba nag ak soxtu du benn riba ak soxtu du benn soxtu mooy alal bu xaraam bépp alal bu xaraam soxtu la tudd riba nag moom ci intérêt la mooy intérêt mooy leb la ñaar fayeeku ñett loolu mooy riba riba ñaar dafa am riba bu ñëw ci alquran aw riba bu ñëw ci sunna bi ñëw ci alquran ñu koy tudde ribal jahiliya wala ribal nasia bi ñëw ci sunna ñu koy tudde ribal fadl wala ribal bu yoor donc boo ne ribal jahiliya mooy bi ñëw ci alquran mën nga ko tudde ribal jahiliya mën nga ko tudde ribal nasia waaw wala ribal day yooyu yëpp benn affaire bi la mooy bi ñëw ci alquran bi ñëw ci sunniyat bi mën nga ko tuddee ribal fadl waaw ah, ribal fadl dañ ko tuddee ribal bu yooxe ci wàllu njaay lay amee eh, yant bi dafay aaye ngay weccee benn mbir bu bokk cosaan ëpplante ko wala ëpplante woo ko wala waaye teew nekkul teew mi teew soo jëlee ñaari kiloy ceeb weccee koo ko ñaari kilo ceeb ak ceeb ba nga ko mën a wecci ko qualité bu mu mën a doon bu dee ñaari kilo ñaari kilo la nga ko jënd wala loo ca teg riba la libre cent grammes boo ko ca tegee riba moo xam parfumé la wala moo parfumé entier comme ceeb la daal day yem wala mu nekk riba te itam teew bi teew lay doon soo ko joxee ñaari kilo tey mu jox la suba ñaari kilo kese waaye tegu faylu ko tey riba lay doon ndax mën naa am li tax nga may ko mu xaar ba suba li nga defe ne ceeba ma gën sa bosa la loolu mooy ribal bu yooy ribal nasiya nag mooy da ngay leb euh, xaalis euh, war a fay xaalis ak dolli ca loolu mooy ribal ribal ribal ribal ribal jaahili mooy ribaa bi ñu doon def ci jamono yonent bi salaatu bi caddu yi daan def ñu bàyyi ko xel loolu euh, ribaat bu yooxee nag moo gën a yaatu moo gën a bari lu ñu koy jëfandikoo suñu so suñu mbokk jigéen ñi danañ koy def lu yaay lu bëri ko yëg parce que seen chaîne or yi def di ko yóbbu ci tëgg di dugal ci yeneen chaîne di teg loolu ribaat ak même bu fekkee chaîne yi kii dafa nekk 18 grammes benn bi nekk 21 grammes amu ci solo comme wurus la rek day yem wala mu nekk ribaat léegi su fekkee da gis chaîne bu la neex dangay ngay jaar jaay ci chaîne sa chaîne ba xam ba yooyu xaalis nga ñëw seen chaîne chaîne bi nga jënd bëgg nga weex nga waxaale ko su sa su sa su ko sa chaîne mënut a jënd nga dolli ci jënd ko waaye doo dugal kenn du dugal dugal riba loolu yant bi ngi ko jàngalee ci tàndarma parce que yant bi dafa tudd ay bëri ay tàndarma ay dugub euh, blé ak yu mel noonu juróom-benn yëf la tudd ne ku ko jaayee jaayante ëppalante ku riba la euh, borom xam sukkandiku ci ne am na ñu ne juróom-benn yooyu rek la nit di jaayante ëppalante muy riba ñu ne déedéet lépp lu nuróog juróom-benn yooyu moo xam dund la wala njëg njëg la parce que xaalis ak wurus njëg la bu boobaa riba la. saa sam dafa bilaal dafa mos a jël benn bis ci ji xam nga yonent li ko wuutaleeg suñu njiit yi. moom lu mën a doon ña gën a néew doole la cay nuróol waaw moo tax da bi muy dund dund néew ñi doole yi la dund dund wuloon dund am bëri ñam doole saaba yu bari ñoo ko gënoon neex du ñuy dunde tàndama bi gën a yées tàndama bi bi ñëpp mënoon a am la doon lekk tàndama bi ñëpp mënoon a am moom la doon lekk bon Bilaal jàpp ne wax dëgg yàlla ku toll yonent yàlla na war naa mérito moom itam mu lekk tàndama ju rafet xanaa bu mu dem jël ñaari bagaan ci tànnama yonent bi jaay jënde ko benn bagaan ci tànnama bu rafet bi indi ko ci kër gi jël ci li yonent bi war a lekk raxas ko indil ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi def li ñu tuddee contrôle ci saa si mu xool xam ne tànnama bii du bosam mu bilaal mu ne ko bii tànnama du sama bos léegi foo ko jël bilaal ne ko suñu tànnama ji laa jaay ñaari bagaan jënde ko benn bagaan bi mu ne ko bu ko ci delloo loolu riba su beneen yoonee jaayal sa ñaari bagaan ba xam lu muy jar nga téye ko sa xaalis dem ci tànnama bi nga soxla nga waxaale jënd mais bul wecceeti ñaari tànnama di ëpplante loolu riba la kon loolu yonent bi salaa salaam moo jàngale euh, li ñu tuddee ribal bu yooye ribal bu yooye bokk na ci bakkaar yu mag yi alfiraaru min azahfi jullit yi xeex nga daw jullit yi di xeex ak yéefar yi nga daw loolu ci bakkaar yu mag yi la bokk xeexu julli nag daa bari façon bari forme waaw jamono ju nekk julli yaa ngi xeex yéen julli julli jamono ju nekk julli yaa ngi xeex ndax xeex du du ci jaasi dong du ga du ci jaasi dong wala taal yanu gàddu fital dong lépp lu lépp combat bu julli yi mëne ngir lislaam tas combat bu jullit yi mëne sax bépp combat bu jullit yi ngir aar diine loolu ci la bokk loolu mooy jihaad te loolu jamono yu mu ngi am su boobaa kuñ ca woo def nga bàkkaar bu rëy da ngaa daw kon bépp yëngu-yëngu bu jullit yi di yëngu ngir tas diine yonent yàlla Muhammad salaat diine yàlla ci bépp yëngu bu jullit yi yëngu ngir aar diine ci aar jullit yi bépp yëngu bu jullit yi yëngu ngir diine gi sax ngir nit ñi bañ a génn ci lislaam bi yëngutu boobu jihaat na ku ko fekkee ñu woola ci nga bañ da daw képp ku daw ci jihaat nag lii la la yàlla ay xaare lii la la yàlla tëkku mi ngi sortu am faal aaya fukk ak juróom benn wa may wallihim yawma idin duburahu képp koo xam ne da ngaa désister da ngaa daw illa mutaharrifan li lu dul daw boo xam ne bëgg a bëgg a mën a xeex mooy li ñuy wax gaynde dawul daawul ci doole bu dul loolu aw mu taxayisat ila fi atin wala nga déplacé seeti beneen kuréel kuréel bi nga nekkoon mi ngi néew doole te nga bañ buñ leen di extréminer boole ci nga nga fexe bopp moytu du ko dem ci kuréel bu gën a rëy loolu ngir continuer li nga doon def loolu may nañ la ko soo ko deful nag faqad baa bi ghadabin min allahi kooku fu mu toll mi nga ànd ak meram yàlla wa mawaahu jahannam kenn mën ta tere mu dugg safar jahannam wa biisa al masiru te xam ngeen ne jafana jahannama dugg fa baaxul yàlla yàlla niñ ci yàlla musal yàlla niñ um kon ñu bàyyi ko xel ñu bàyyi xel ne amuñu droit ne daw liggéeyu yàlla bi daw ko ci bàkkaar yu mag yi la bokk waaw bokk na ci bàkkaar yu mag yi aklu maalil yatiimi lu maalil yatiimi lekk alalu jirim su la neexee nga ne lekk alalu néew ji doole waaw ndax jirim mooy tam dafay dafay dafay dafay ki baayam dee bàyyee ko alal jirim la waaye population yi itam ci kanamu état bi par rapport ak richesse bi nekk ci réew mi alalu réew mi li fi nekk ci koom njam ñoom nekk njaboot yàlla ki yàlla teg réew mi ci loxoom ay jirim lay la yilif lu mu jël ci alal réew mi pasar pasaree ko wala mu noos ko moo ki lekk alal jimé benn benn at lañ yor waaw moo ki moo moo ki dégg jirim mu lekk alalam ñoo yem même situation kon loolu tam ñi ñuy gouverner ñu xam ku baax ñi na xam bu baax ne di dañoo wuutu yàlla ci njabootam gi waaw ah, te réew mi lépp lu mën a teral waa réew mi am na fi jàll waaye ku ne xam ne ne at yi passé suuf si fasal fasal nañ ko fasal fasal boo xam ne kenn mënatu koo lijjanti ay xeetu tooñ yoo xam ne kenn xamul nu mu dem nangu ay suufu jaamu nangu suuf si ñëpp bokk jokk benn nit waaw ah, su ko defee kenn du ko ñëwee te tudd waaw ah, loolu at yu mujj yi jalgati bu mel noon am na Sénégal loolu ki ko def mook jalgati al alul jirim benn lañ te li xaar ki jalgati al alul jirim moo koy xaar mooy lan inna alladina yakuluuna amwal al yatama zulman innama yakuluuna fi butunihim naar ñiy foqal ci ñiy lekk alalu jirim yi ñiy lekk alalu réew mi yakuluuna fi butunihim naar ñoom safara la ñuy lekk te wa sa yaslawna kenn mënut a tere ñu dugg safaraw sair loolu tam ñu bàyyi ko xel kon àlloolu jirim lekk ko ci bàkkaar yu mag la ñu ngi door a ñëw gis nga bañ bañ ñu ngi tàb bañ passé tuumaal jullit tuumaal nit ngi door agsi ci zina la zina njaaloo ci bàkkaar yu mag la bokk loolu yàlla nga ko wax ci sóoratul furqaan aaya juróom benn fukk ak juróom ñett benn fukk ak juróom wa man yafalu dalika yalqa athaman yàlla nee na ku njaaloo da nga bu mag a mag te yudaaf lahu baab say sa mbugal wa yaxludu fiha muhanan mu beel safara nekk ku torox yàlla nañ ci kon njaaloo itam ci bakkaar yu mag la bokk ñu bàyyi ko xel ñu moytu ko lu ñu mën a mën a a ñu moytu ko luñ mën a mën a mën a mën moo tax te njaaloo nag dañ dañ ci ñàkk a njaaloo dañ ciy dimbali nit nit ñi waaye nii dëkk bi mel nii nii mucc fi ci njaaloo yombul mucc fi ci njaaloo yombul parce que dañ lay proqué léegi jigéen ñi dañ lay proqué te léegi amul benn daan bu booy ragal amul sanction booy ragal sanction yàlla bi kenn du la ko tegati nit ñi tam toléré nañ léegi ko njaaloo moo tax fi mu ne nii ku yàlla musalul benn xale lu góor bu toll ci dooleem te mu te yàlla musalu ko mën naa def bàkkaar boobu ndax dañ koy provoqué contexte bi environnement bi lépp da koy woo ci mooy yàlla boobu yàlla na ci yàlla musal ndaw ñëpp parce que musiba naaru kumba la dara baax ci bi ci topp mooy katmaanu shahada mooy nëbbu dëgg nëbbu seede ñuy wax sa mbokkum jullit lu lu dul dëgg nga noppi ñaari jullit am problème nga xam ki ci tooñ nga noppi benn xew-xew am nga xam la cay dëgg na te doo ko wax loolu ci bakkaar yu mag yi la bokk jamono ji itam yomb na jullit yi lool lool lool lenn li ci ci ragal nañ koy teg lenn li ci bëgg teraangay àdduna lenn li ci maslaa ak bañ ku leen mere waaw loolu nag loolu jaadu loolu jaadu ñun dañoo amal suñu mbokk yi àq bu ñu leen xamee na ñoo nekk ci dëgg fu ñu leen tuddee te waxuñ dëgg ñu weddi ko jamono yi jàll am naa situation bu mel noonu ak benn kilifa diine boo xam ne xam naa sax xëy na après loolu gisin bi mu am ci man c'est peu négatif mais amoon choix maître Babacar Niang avocat woon te mu génn àddina yàlla na ko yàlla dolli yërmande te xare ko àjjana dafay liggéey liggéey bu rëy ci mu dundam mooy projet bi ñu amoon ci code de la famille nga xam ne mën ngaa wax ne ci juróom-benn at la ko liggéey nekk këram jël alalam ak léppam ko pour projet boobu gannaaw bi nga xamee ne fële ci aéroport bu Dakar bi ñu appliqué commencé di appliqué planning familial depuis 72 conséquence su planning familial bi mooy tas sëyu tas loolu la ñëpp constaté mooy léegi sëy tas dafa yomb ñëpp du ko jàmbat même mastraay di ko jàmbat am ci ñoom ñu dem ci si Abdou du ko jàmbat loolu ba si Abdou mujj ñu wootee daje fii ci aéroport benn benn weeru koor boo xam ne si Abdou Karo fa la yendu ak Cheikh Mountaga Tall ah. yàlla yàlla yërëm leen ñoom ñëpp moo tax parce que inachevé keroog mu maître Kabibel Diouf ci ñi doon def communication bi la bokk ay juristes yu bëri ñoo fa dajoo ñu jël ci peg code de la famille bi càmbar ko wax li ci nekk ci ay njaaxum waxuma sax côté diine parce que ñoom jàng ñu woon diine baax mais côté rek adduna bi côté social bi rek li muy tas li mu yàq ñu wax ko ñu ñaxtu ko keroog aéroport li mu bëree nit dafa bëri nit ba gouvernement bi daa mujj tiit ay ay arrêté PV ba fa doon dem ñu arrêté ko ngir ragal ne bu ñu fa jógee dañuy def waaw waaw fees foofu dal ay ay police bañ ci jógee ñiy organiser conférence aéroport yi ne léegi nekk fi ak bu jot ñu def conférence ne dimanche si jëkk wala ñaar dimanche këram lañu dem ñoom seede nañ ne fuñ mës a dem këram dañu fekk mu toog musu musuñ fa musuñoo dem foofu xaar fa lay nekk ba nga paree bu gunge bi yooyu paree bu jël alalam dem wër kër diine yépp présenté la kër diine bu muy dem day yóbbaale cadeau waaw moo tax fu mës a dem dañ ko recevoir parce que parce que moom loolu léegi alalam bi ci des projet bi la ko def ñu recevoir ko fépp fu mu dem ñu may ko temps mu déglu ko mu wax ba pare ñëpp adhéré ci projet mu daal di mu daal kër diine yëpp kër bu nekk créé benn commission jox ko texte ñu xool ko lañ ca d'accord ñu bind ko def ko amandé ko boole ko yónni bi ñu ko bi ñu jotaatee yooyu yëpp mu dugal amendement yëpp ba texte bu mujj bi mu dellawaat leen ko ñoom ñëpp ñu ne ko texte bi ni mel lay baax mu ne leen kon nag yéen yéen ci des léegi. ñun suñu waru nga def nag da ngeen di bind président lettre wax ko ne yéen kilifa diine sénégalais yi code de la famille bi ñu fiy doxal d'accord leen ci te mosu léegi même toit bi bi ñu fi nekkee suñu wàllu sëy daf ñu ko bàyyi woon kon bu dem ba am indépendance ñu ñëw di ñu imposer benn si boo xam ne dara baax léegi nañ ko proposer président bi yóbbu ko assemblée ñu ko di ci gérer jullit bi ñu bind lettre bi mu bind ñu ne ko bind lettre mu bind lettre ñu xool ko ba d'accord ñoom ñëpp ñu signé ko ñoom ñëpp ko siiw ñëpp ko siiw sëñ Saliou suñu Mourtada Mbacké radiyallahu taala moo moo signé ci place bi amul ko kilifa dégg ko si ñu jox ko président bi fi nekkoon président bi tontu wu leen ba mu demee ba Japon la leen tontu. xas la ki bi ki jiitu Macky ci Macky remplacé mu dem Japon mu ne mu saaga mu ne mbay ña mu ne moom du nangu benn policier bu perte torox ci politique amul dara ñëw di ko di ko di ko fontoo ñu indi ay naan code de la famille waxuma sax code de la famille code de la de la famille xalaata ay nit alxuraan bii nga xam ne yàllaa ko maa ngi xaar ba nit ñëw ne ma appliqué loolu wax ko lettre boobu ba fii ñu toog nii waxee kenn tontu léegi ma dem seeti benn kilifa diine léegi moom mu bëgg mu bëgg a tëj bu mu ne non xam nga ñoom tam bay xam nga léegi comme moom tam doonul politique rek ñi tam politicien la kii dañ bu bëgg a wax ne kon imam Mbaye Niang Mbaye Maître Mbaye Niang da doon politique moo tam yële woon ma ne ma alors ci sama ci saa si ma senti responsabilité ma ne kii su ma ko waxul ni mu demee man su ma ko amee dina Mbaye imam Mbaye Niang dina woon lay ma tayee ma ma ne ko sëñ bi nga jéggal Mbaye Niang nekk fi mais wax ni su ma ko waxul suñu lawee maamoom dana koy Mbaye Niang bàyyi bàyyi la politique lu mat ñaari ak ba ñett avant ñu koy sotti liggéey liggéey bi yàlla ak seen réew mi rek a tax loolu dama bëgg nga xam su beneen yoon ñu wax leneen waaye bu ñu tudd mbay mu ruus trop parce que kilifa bu mag la waaw waaye léegi li ma ci wax rek mooy li ma sax ma indi ko yëpp mooy nit du nëbb seede as gor ab jullit suñu waxee mbokkum ci bërëb mbokkum jullit lu dul dëgg dafa war a dindi ko war a dindi loolu alxuraan wax bokk na ci lim xase saaba yi entre guillemets ngeen baal saaba yi nopp ñi ñi tuumaaloo soxna Aysa ak ñi noppi ñëpp la xas daf ne leen lu teewoon ba ngeen ko déggee ngeen ne du dëgg parce que loolu soxna du ko def loolu la lay wax même ñi nopp woon ne ñoom du dugal seen lab bi daf leen xas parce que dañoo war a wax ni du dëgg waaw Abul Ayyub am ne sëñ bi est ce que yaa ngi dégg dafa ci dëgg mu ne ko lan mu ne ko soxna Aïcha mu ne ah bon mu ko loo ci loo ci xalaat mu ne ah man lu ma ci xam kon na xam dara mu ne ko soxna si est ce que yow adduna mën naa soppeekoo soppeeku ba nga njaaloo mu ne man yàlla tere du ma njaaloo mu ne ko nag soxna yéen tamit sa bopp njaaloo war nga ko jomb loolu mooy jullit jullit lay def jullit noonu lay def donc nëbbu seede ci bakkan mag la al yamu al yaminul xamuus yamu yaminul xamuus mooy giñ lu dul dëkk giñ ne da def dara te mu wóor leen ne doo ko def wala giñ ne defuloo dara te mu wóor la ne yaa def loolu tam ci bakkaar yu mag la bokk te xam nga ni ngiñ léegi Sénégal yi lu leen yomb la lu lu ñoxor ga la la rek nu giñ loolu yàlla nga ko tëg ko kii def loolu yàlla nga ko tëg ci Ali Imran ay juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar inna alladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la xalaqa lahum fi alaxira wala yukallimuhum allah wala yukallimuhum allah wala yanzuru ilayhim yawma alqiyama wala yuzakkihim wa lahum adabun alim nee na yàlla ne ñi nga xam ne dañuy dañuy jënde taraangay àdduna seen kóllëre borom kóllëre borom ak gi seen i di giñ rek ngir am àdduna loolu sama leen xalilan la ko yàlla tuddee la ngay jot li ngay amee ci ngiñ mi wala li ngay amee ci war yàlla ci àdduna ak lu mu bëri bëri saman xalil la ñooñu amuñ benn cër benn cër xaaru leen te yàlla da leen di mere ba du wax ak ñoom dox du leen xool yow man xam te xam nga yàlla xookum xool yow man xam nga texe wala yuzakkihim du leen sellal du leen baal wala hum adabun alim kon giñ lu dul dëkk ci bakkaar yu mag yi la bokk surbul xamri naan sàngara itam ci bakkaar yu mag yi la bokk yàlla nga koy wax sooratu Maayida aaya juróom-ñeent fukk innama alxamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali shaytaan fajtanibuhu laalakum tuflixuun sàngara geeg carte geeg njabar gi ak gisaane gi ak pettaaw yi rijsun min amali sheytaan yooyu yëpp rijsun min amali sheytaan xam nga Sénégal dëkk bu doy war yii yàlla araamal ni rijsun ay nit da koy def ba pare di ko di ko def ci tur yàlla waaw waaw di gisaane di tëni naan yàlla moo lay xamal ci tëni te yàlla de yàlla ne tëni ci ci ba sobe la rijsun min amali sheytaan faj tëni boobu laa la bokk na ci bàkkaar yu mag yi tarku salaati bañ a julli wala loolu ci bakkaar yu mag yi la ngi laaj sóorat al mudathir maa salakakum fi saqar maa salakakum fi saqar qaalu lam naku min al musallin saqar safarawu tàng la malaaka yi bu ñu fa fekkee ay ay nit ne lu leen fi place jullit ñu ne ko lam nakku minal musallin daawuñ julli dañ daan foye julli dañ ko daan caaxaane bokk na ci bàkkaar yu mag yi naqdul ahdi wa qati'atu rahim ñàkk respecté say contrat ak say coloré ak dagg mbokk loolu ci bàkkaar yu mag yi tey lekk dañuy askane ni nit diine te amul benn mbokkam bu jubal tey moo tax jamono jii fi jamono ji tey waar la ndax affaire yi dafa juutu bu njëkk toppatoo say bokk ci topp yàlla la ci gëm tey nag nit dana am diine ba pare daggoog bokkam yépp waaw amul amul amul benn mbokkam loolu lu naqaree lijjanti la waaw loolu boobu am googu am diine neexula neexula firi loolu yàlla mi ngi tëkku ñi mel noonu ci surat Muhammad aaya ñaar fukk ak ñaar ba ñaar fukk ak ñett fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fi l ardi wa tuqattiu arhamakum mu ne xanaa da ngeen a dof ah xanaa xamuleen ne bu ngeen jógee di yàq ci kaw suuf si ak di dagg seen mbokk yi loolu lu ñaaw la ulaika alladina laanahum llah ñooñu yàlla daf leen rëbb fa asammahu mu sànq seen nopp yi du ñu dégg dëgg wa ama absarum duñu gis dëgg yàlla ñu ci yàlla musal yii muy ay tomb yoo xam ne daanaka téere yu bëri indi nañ ko boole ko ci bakkaar yu mag yi soo ci boolee nag soo ci boolee nag al israaru ala sagair mimma duna hadihi al umur allati jaa al waidu fi xaqiha aw unita al xadd wal uquub wal iqaabu dunyawi biha faqad ittafaqa jumhuru al ulama ala anna al israr ala sagiratin ma yutqilu saaxibahu fi zumrati al fasiqin qaala saaxibul jawhara wal adlu man lam yartakib kabira wa lam yakun mulaaziman sagira mu ne boo boo ñëwee nag ci li ci des nag beneen bakkaar bu mag bi mooy xeeb bakkaar bu ndaw bakkaar boo xeeb rek mu mag mu nekk mu mag te mooy bakkaar boo xam ne da nga koy def defee ne dara du la ci fekk waaw ndax jàpp ne lu woyof ndax bakkaar du woyof fii séddale bi rëy géeg tuuti ci ñun la du ci yàlla ah rëy géeg tuuti ci ñun la fii ci ñun lañ koy nattee kenn du ko natt ci yàlla yàlla diggante suñu diggante moom bàkkaar bu rëy gi tuuti amul bàkkaar yëpp rëy suñu digganteeg yàlla bàkkaar yëpp rëy parce que bàkkaar mooy ñàkk a def ndigal yàlla wala bàyyi lu ne loolu mooy bàkkaar léegi nag loolu moom yëpp rëy bu fekkee ca yàlla aju ci su suñu waxee yàlla bu yàlla waxee bakkaar bu rëy bu ndaw li mu mooy bakkaar bu bu bu lu muy yàq ci biir nit ñi ak bakkaar bu tuuti lu muy yàq ci biir nit bépp bakkaar bu bari lor ci nit ñi mooy bakkaar bu rëy bépp bakkaar bu néew lor ci nit ñi mooy bakkaar bu ndaw loolu ci ñun la du ci diggante yàlla loolu tam lu jar a xàmmee la. donc bu ñu nee bàkkaar bi rëy na mooy su mooy loram ci nit li muy lor bari na li muy yàq bari na loolu lay tekki yi mu fi tudd yëpp day yàq dëkk yi ñu fi tudd yëpp tuddee ko bàkkaar yu rëy day yàq dëkk day yàq dëkk day yàqum réew moo tax mu nekk bàkkaar yu rëy euh, loolu moo tax bàkkaar moom bu ajoo ci yàlla yëpp a rëy moo tax yàlla wax ci sóorut Faatir walaw yuaxidu llahu nnaasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min daab walakin yuaxiruhum ila ajalin musamma fa ida jaa ajaluhum fa inna allaha kaana bi ibaadi basira yàlla nee na su ma doon def ku ma tooñ ma duma la kon kenn du fi desati waaw baatu tooñ boobu nag dugal na bakkaar yu mag yi dugal na bakkaar yu ndaw yi moo tax diggante suñ diggante yàlla bakkaar bu ndaw amu fi yàlla ne su ma doon def ku ma ma duma la kon dëkk bi kenn du fi des wala waaye nag dama leen di bàyyi rek ngeen xaar di xaar ba dee jot su ngeen de dee bay agsi ci man nag ma door ko réglé ndax inna allaha kaana bi ibaadihi basiran li ngeen def yépp xam naa ko yëg naa ko dara du ma wala fi nee na sàcc bu dul raw jaru yàq nelaw du raw boo nekk ci kër goo xam ne sàcc bi ngi dugg la ne mënatul génn kër léegi loo loo yàq dana toogal bu bët set ah, ah, waaw jaru ko sàcc bu dul raw waaw léegi nag tooñ yàlla mooy sàcc bu dul raw loolu bi maa kasa boo day dugal bàkkaar yu ndaw yi ak bàkkaar yu mag yi kon euh, bàkkaar du tuuti jullit bi lu mu def ci bàkkaar lu mu tuut tuuti war na rëy ci bëtam su rëyee ci bëtam rek bakkaar ba woyof bakkaar bi itam lu mu rëy su su la tiitalee rek nekk bakkaar bu ndaw yàlla ngi wax sortu moom it walladina yutuuna ma ataw wa qulubuhum wajila wa annahum ila rabbihim rajiun mi ngi tagg ñi nga xam ne bakkaar bu ñu def tiit ndax xam bu ñu xam ne dañu dellu seen borom ñooñu seen bakkaar yooyu yàlla da leen koy baal kon loolu li muy tekki mooy doomu aadama bi warul tiit warul xeeb waaye bakkaar bu rëy itam waru koo tax a nangu ba def ne dutu baaxati innahu la yaxis min rawxillah illa al qawmu loolu sortu yusuf la jàpp ne dooto baaxati ci mooy yàlla la bokk jàpp ne dootoo ci mooy yàlla la bokk yàlla ko mooy ñi nga xam ne yay asu min rawxillah ñi jàpp ne duutuñ mën a tee baax illa al qawmu alkaafiruun def loolu kon jullit bi bakkaar bu mën a def bu tuutee nag bu mu ko tax bu mu ko xeeb waaye lu mu rëy rëy na jàpp de borom mën na koo baal ndax séq koog moom séq ko ak yàlla hadis bi may jàng ñu déglu ku baax yabtadix hada jalilan min alxadit alladi rawahu salmata salmata ibnu al akwa anna rajulan akala inda rasulillahi bishimali فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا لاستطعت ما منعك إلى الكبر فما رفعها إلى فمي kon rëy mooy problème waa ji waaye waaye si dafa ñëw bokk ak yonent bi di lekk lekk càmmoñam it yonent bi ne ko lekkal ak sa ndeyjoor mu ne ko mënumaa lekkee ndeyjoor mu ne ko man nga ko da ngaa rëy doomu waa ji yëkkati yëkkati loxo bi jógatul loxo bi mënut a àgg ci gémmiñ ci ndax tam nag yonent bi ku bari yërmande la waaye nag yenn def yi boo ko defee ci saa si la ko réglé mu yëkkati yëkkati loxo bi jógut kon problème rëy rëy lu garaaw la lu jara moytu la ndax euh, mooy bakkaar bi nga xam ne <coughs> yàlla du ko baal mu ne yonent bi moo wax ci xadis inna al mumina la yara dunuba ka annahu jalisun fi asli jabalin yaxsha an yanqaliba alayhi wa inna al fajira la yara dunubahu ka dubabin marra ala anfihi fa qaala bi hakada nee na li wuutale jullit ak yéefar mooy xeet bakkaar nee na jullit bakkaar bu mën a def lu mu tuuti da koy xool bu mel ni dafay mel ni montagne tiim ko nee na ab yéefar nag bàkkaar bu mu def lu mu rëy rëy day mel mu def ko ndax yanti moo ko nettali xadis boobu Buxaari bind na ko ne yanti waxaat ne al imaanu bi bit al imaanu bid'un wa sab'una a'laaha shahaadatu an laa ilaha illa allah wa adnaaha imaatatu al adaa an mu ne ngëm yàlla juróom ñaar fukk shirk la ak dara bidaa mooy loo xam ne passé na juróom-ñaar juróom-ñaar fukki cër la ak dara cër bi ci gën a rëy mooy nga wax laa ilaha illallah bi ci gën a tuuti mooy ngay dox ci yoon wi gis lu mën a gaañ lu mën a gaañ nit nga teg ko teg ko fa nga gis ne kon gis ne toujours mbir yi mi ngi dellu ci nit ñi ah, léegi nag li ci des mooy màggal borom bi te naw ko yàlla ñu wax ne feek jullit bi mi ngi teew teewlu màggu yàlla gi problème yi rek problème day réglé feeg jullit bi mi ngi teew teewlu màggalu yàlla màggu yàlla gi di ko nangu problème day réglé bàkkaar bu tuuti ci moom ndax du xool bàkkaar bi yàlla lay xool yàlla mi ko mi ko sant te def ndax sa kilifa su la yónnee loo man boo ko deful lu loola tuuti tuuti ma manqué nga ko waaw doo wax ne bu tuuti rek loolu lii rek loolu ku ku manqué kilifaam rek moo ko def waaw ah, sa sa kilifa lu li mu la sant lu soo ko def rek manqué kon bàkkaar bu tuuti ci ci jullit ki ko ko sa ki ko teg li tax mo bàkkaar bi dal ko mooy tax mooy yàlla waaye bàkkaar tam bu rëy rëy mukk ci jullit ndax xam gum xam ne yàlla dara du ko laal ci bàkkaar bi te dana ko mën na koo baal loolu la yàlla surtout xaj ji dalika wa man yuazim sha'air allahi fa innaha min taqwa képp koo màggal shaairullahi shaairullahi nag dafa yaatu fa innaha min taqwal qulubi bokk na ci ragal yàlla fonk màndargay diine yàlla ci fonk jàkk yi fonk màkk fonk bisi ajjuma fonk alquran fonk sunna yont yàlla muhammad fonk say wayjur fonk nit ku baax fonk borom xam-xam fonk jaamukati yàlla képp te fonk ko loolu mooy shaa'irullaah shaa'irullaah nag yàlla ne ku ko fonk min taqwal quluubi kooku ku ragal yàlla la te ragal yàlla rek moo am solo yàlla nañ ci yàlla sedd sedd cër bu rëy rëy rëy ci barke yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh alhamdulilah